ngir dundal weer wi ginnaaw bu ko njëkkee dundal ci ginnaaw tàkkusaan ji dund ruux bu ñu demee ba dog jot ñu dundal ko ci yaram yi buñ tolloo foofu nag dañoo baaxoo am kilifa yoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk liggéey bi ci di ci liggéey bu rafet ñu yàgg ànd ñoom liggéey bi te li ñu yor ñun di yi ñëpp tax ñu ubbi bunt yoo xam ne dañuy bëgg kenn ku ci nekk am ci sa wàll kenn ku ci nekk tamit la nga la nga ciy sa xalaat nga mën koo jotal ñu tànn kilif kuréel yooyu ak mbooloo yooyu ak kilifa yooyu di ko ànd ñoom tey jii ne ñu dalal ci ñu ràññ ñoo xam ne kenn du leen présenté boo tuddee seen tur rek ñëpp xam seen jëf ndax wax ak jëf yemuñu ñoom dañoo jëf waaye waxuñu loolu mooy waa Touba ca kanam seen jëf ràññ ko fa tabaarakallaahu képp kuy bëgg rafet képp kuy bëgg lu jëm kanam boo ko xoolee da ko rafetlu da ànd da ci jàpp kon nag ni nga xam noonu lañ doone partenaire daayira Moukhaddamatoul Khidma tax ñu ñëwaat tey jii ànd ak ñoom ci bis bi ñu leen tàllal loxo di leen laaj xalaat yu jëm ci ni ñu gisee daayira bi ci soññee wala jàjjee wala lu mën di doon. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di ci turu Touba ci kanam gépp ki nga xam ne sëñ Abibu Mbàkke mu sëñ Fallu moo ko jiite Euh, ma ànd ak délégation bu am solo boo xam ne euh, ñëw teew nii ci sama pegg sëñ Saliou Diakhaté moom El Hadj Mbacke Diakhaté mi nga xam ne mooy jàngalekat bu mag bi ñu jàngale ñëpp sëñ Abdou sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ euh, Abdoul Akram sëñ Khadim Diouf di administrateur Touba ci kanam sëñ Bara Mbacke di mani jiite massification maanaam ki yaatal Touba ci kanam ci gox yi fépp. Euh, defe naa ne am na kenn ku ñuy wax si Mayib Ndiaye nekk membre ci comité comité scientifique et culturel ak man mi di wax ak yéen xam naa tay na ma présenté sama bopp dama naan man na rek yem ci <laughs> kon ñoo ñëwoon teewaayal teewal Touba ci këram gépp ci invitation bu am solo bi nga xam ne euh, ñun ñi ñu invité ak ñi nga xam ne ñoo ñu invité benn lañ mm-hmm. ñooy ñoom ñooy ñun ci wàll yëpp ci saari ci batin xanaa dañoo baax te bëgg lu rafet rek ak ak jot jotal moo tax ñu def ko euh, di wane nag Touba ci kanam ñoom comme ni ngeen ko xam ne tur wi nag ni mu demee loolu euh, noonu la objectif yi demee bëgg a jëmane dëkk bi rek ci kanam ci domaine yëpp nag kon suñu yéene bu matee te yàlla mat ak jàmm kuréel bu nekk ci Touba boo ne di liggéey sëñ bi dañ la fekk fa nga nekk defal la la nga bëgg lépp ci ay moyens loolu mooy suñu yéene tàmbale nañ ko kon di ñaan sakku seen ñaan ak seen jàppale ak jàppale mboolem rek taalibe yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf Serigne Fallou yi nuru na mbooloo mi nga yor mooy mbooloom jëf ti bañ a wax kaddu li muy gàtt kan tënku na am na solo ñu ngi ñaan ci yàlla sunu borom mi sàmm boole ñu sàmm taxawuñu ba li ngeen yéene ci dëkk bi ti mu doon yéene joo xam ne yéene yu mboolem taalibe yi Serigne Touba yëpp la ñu jëf ko ñun ñëpp ànd ko ñun. yàgg fa Cheikh Mouhamadou Mountakha ak kilifa yi nga xam ne ñi ngi dox jëmee bokk ci liy joxe doxe ka Ca Kanam ñëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal tudxilil musliha fi fi daari wa